maa ngi ci ay trop trop waaye du ma mos a xaar ndax yàlla dana fa innamal usri yusran luy jafe lu ne dana yomb te booy yi nekk sama gannaaw tam bëgg naa ñëpp ngeen jàpp ci yéen yéen nga xam ne ñun ñii ñëpp yow ñun ñii ñëpp tey suñu àdduna xamee ci yéen la grâce ay yéen la kon nag ñoo ngi leen di tàllal loxo te bëgg tam ngeen ñëw ci école de lutte bi ndax parce que waa cité gendarmerie danañ leen recevoir ak jaxaay gépp ndeysaan Lat Joor ak Demba Thiaw ndeysaan kii woy mën naa woy lool ndeysaan eh Lat Joor dem na jëli ko doole doxul jàmm de doole doxul jàmm de ndeysaan Lat Joor ak Demba Thiaw eh Lat Joor ak koy mbot ah Lat Joor Demba Thiaw daan na Lat Joor ah et eh, na jël am na way ay waay ay waay arbitre bi waay ah Lat ak koy kot. Demba Coow bañ na ma koy modd bañ na ma koy jéem a modd Lat Joor a ngi koy jéem a modd ma koy jéem a modd bañ na Lat Joor ak Demba eh, Lat Joor koy jéem a ah lu am arbitre nee na jël am na na jël am na Lat Dior daan na Lat Dior daan na waaye Demba Thiaw tu n'as pas démérité bëre nga bëre bu dey maa ko njëkk daan première site bi man maa ko daan dama daw di ma di ma di ma euh, zongale ma wéeru si mu teg épaule bi waaw mu teg épaule bi waaw waaw effectivement waaw dañ bëgg nag pour ngeen leeral la ñu kap si tele bi ñëpp gis ka nee na bi ngeen dem la si sama glaal na suuf non non gis nga sama bu laanu man du ma continuer ak taxaw man nangu ne man damaa daanu mais ñi man ñi ma àndal moo tax. ndeysaan bi mooy ñetteelu combat bi Boy Daro ngi dox ci kawam Boy Daro dóor na Boy Daro dem na Boy Daro dem na Boy Daro dem na oh ndeysaan xale bi wër na wër nga waaye ndeysaan ba Tambakra ba laa ilaaha illallah ah jël li bëri na. ah booy daaru daan ko ko. Tambokara mu ñël. Tambokara li mooy lan. waaw ah, gis nga rek sant yàlla rek. ndeysaan billahi grand bi may ñëw dañ may yàpp. suñu waa kër barki Serigne Touba dañ may yàpp. mais noo bëree. waaw ah, waa ji xam naa ne mënul xeex. dañ na ma teelu ko rek yàgg yàgg day ñëw. mënul bëree. xaar ko mu ñëw jàppal ci catu ngemb li zongale ko. Tambokara benn doomu Cheikh Modou Kara ma tuddee ko sama bopp taalibe nooree ni la nee Medina pare nga dox ci sa garde pare amul dóor ci dox amul mat amul kolej yooyu ba amu ci ah mu laay lay la laa dox ci sa garde yow mi moytul Medina dox ci sa garde dox ci sa garde waay doxo ngi dox ci kaw gardam Medina dugg na ci biir garde dox sa garde ah laa ilaaha illallah ay bii dóor ah loolay Dakar ba ma Medina laaw na daw nañ daje ñoom ñaar daw nañu daje dox ci sa gar rek Medina ma ngi koy jéem a kal teq na ko tequm jàllawle bañ na mbatooy mbat waaw waaw laa ilaaha illallah ay eh, waay dox ci sa garde waaye dox na ci gardam dox ci sa garde dox ci kaw daa garde ko Medina ay eh, waay Medina nuyul ma waa Ndakaaru laa ilaaha illallah da koo tax ci wetu càmmoñ gi mu yaakaar fële mu nekk ci gi. mais dox da ngaa dox ci kaw waa ji torop yow it. ah xëy na barki Seydina Mouhamed moo ma wax ñu mun nañu kaa seere 2005 ba tey maa ngi mbapat 2005 ba tey maa yàkkamtiwul suñu may liggéey dara bu doole wees ginnaaw ma bi gërëm sama ndey gërëm sama baay bi mu demee ardo xam naa ko dóor suuf mu ñu xaar dan arbitre mu ñu xaar takk ko dama kaa takk bu yaakaar dama koy caxabal ma dóor ko mbot ndeysaan bii mooy cinquième combat bi dumul Cissé sunu càmmoñ booy fay sunu ndeyjoor laay léeg la moo dumul mi gën a njaxlaf ah dumul mi daw nañ daje ñoom ñaar booy fay téye na dumul siise téye na booy fay ak dumul siise laay lay la laa ñaar xale yi bëri nañu de ñi bëri nañu ba jargandal mu yéen dumul siise dumul siise de bàyyiwul booy fay mu xalaat waaye booy fal mooy mu mën a bëri mi ngi rasu eh waay eh eh eh eh eh, eh, eh, eh arrêté waay dumul siise ak booy dumul wàññi na rythme am daw na jëli ko daw na jëli ko daw na jëli ko. eh laa ilaha illallah naaw nanu naaw nan laa ilaha illallah Boy Faye daan na Double Cissé laa ilaha ay mbokk mbokk Mbaye Faye mbokk Mbaye Faye laa ilaha illallah kii xoolal kii borom baax la li ñu war def saaga ma nay def ma benn affaire borom baax la champion la xam nga li problème am sept ans di jàngi école maa ngay jàng bëre barki Seydina Mouhamed bàcc seeraas di ma entraîné bëre bilaay gannaaw Aliou mi dul daj ci man bilaay may toll nii lu toll nii bu naan sama mbëri ñi nii bilaay wallaay. ci combat bi ci combat parce que yéen ñaar da ngeen ci kaw. galgalante xam nga nu mu demee. te waa ji mooy la prolonge. moom moo prolonge moom mais bi ma ko dóoree. xam nga dañoo korante muy sarde di sarde sarde épergit ma wàcc def demi flexion rof ko jaxabal di ko jéem a xatar bi mu jéggi tànk bi ma taloon na ko ci kaw ma ma ko taloon muy jéggi tànk bi ma puus ko. làmb la boo xam ne bii Abdoulahat Ndiaye d' abord au passage maa ngi koy gërëm di ko sant bu baax parce que lépp moom moo ko def man euh, mbër yi sax xaw ma leen mbari yi bëre xaw ma ci li ma xam rek mooy xale yi nañu leen essayer defal promotion pour ñoom ñëpp ñu bëre. sama sortie le 6 mai la ñu ngi koy préparé banlieue bi yëpp ñu koy préparé. ci diggante ah, ñu ngi koy def ci diggante Boy Niang bu école de lutte Balla ak Boga bu Fodé de Souba. Eh, dañ ciy defaale première face à face Alemda ak euh, Falang numéro 2. ñu koy defee fii stade Amadou Barry. waaw tuddee ko drapeau way cette fois ci dañu jël euh, initiative comme quoi que daaw dañu tëgg drapeau Pikine ren dañuy tëgg drapeau way booy sey ak Nandi Fall. ndeysaan Nandi Fall day moytu saafara sos ak Boy Seye nen bi mu toj. Nandi Fall cokkaas booy sey Seye mu ngi koy filé ndeysaan sey bañ na rasu nan nañ koy filé daa bëgg a jeexal combat bi nan di dafa bëgg a jeexal combat bi ñaari xale yaa ngi xaru nag ah ñaari xale yaa ngi xaru saa ci kii ñaamaa ñu mëri laa yi lay la la ndeysaan ndeysaan combat bi match nul na kaay leen combat bi match na de mais xoolal amateur yëpp sedd fii de ci stade Amadou Barry encore une fois lay wan ni lamb daal toujours dox na ay jéego. drapeau bi at bu nekk day wone li nga xam ne ci suñu culture dafa am solo mooy euh, lutte traditionnelle ak culture séeréer waaye li nga xam ne moom ci gën neex mooy chaque fois bu amee sama mbokk yi samay xarit yi sama jabar sama njaboot ñu ma bokkal yëpp dañuy teew. pour woon mën a cofeel bi ñu am ci man ak ni ñu àndeex man ci li nga xam ne moom la ñu def gis nga ñu toog fi yëpp muy président Idi Thiam président Lamine Niang ñi ma ko seexal ca patronat waa CNES ñëpp ngi fi pour ñëw jàppale ma ci drapo bi loolu nekk loo xam ne dafa yegg sama xol loolu dafa nekk loo xam ne dafa am solo pour man ma ci sant yàlla bu baax di leen gërëm ñoom ñëpp à travers 2STV di nuyu El Hadj nga xam ne sama xarit la di wax ne daal drapeau bi yal nañu yàlla may kàttan ñu continuer ko at bu nekk. Mansour Kama nekk suma xarit di sama doomi ndey mu nekk président CNES ma nekk président ENACOIS ñu bokk ay xalaat muy nit ku baax di nit ku gore su fekkee bésam dama cay dem ba jeex. parce que affaire Moussa Ndong luy coow Moussa Ndong luy coow Isabelle ñu ngi lay nuyu. maa leen di fay. ñaari champion d'Afrique ñaari champion. Malette yi noo gisee euh, sixième édition bi. non di rafetlu émission bi vraiment et émission bi passé man maa ko jëloon cette fois ci bu ngeen gisee eh, Malal ñëw ci bi yoon représenté défendre titre am dafa am nu mu demee parce que Malal dafa qualifié ci Jeux olympiques Londres yi war a mën a dem défendre couleur Sénégal ak Afrique loolu moom moo tax ma xaw def stand by tuuti ci lutte simple bi pour bañ am benn blessure fii pour war a mën a dem Londres et confirmer li nga xamante moom la ma Sénégalais yi jox nii daal. bépp si sport mooy dem première même bu doon tey benn yoon sax Jeux olympiques. mais maa ngi lancé appel autorité sénégalais yëpp surtout le président de la république Macky Sall ak ay ministre am ak gouvernement bi ak sénégalais yëpp ñi daal ñuy jàppale ci ay moyens te ba nga xamante ne ñu war a mën a defal suñu ginnaaw la tànk avant ñu dem ñu nga benn stratégie nga mën a am bu nga xamante bu ñu demee ñu war am ñu mën a peser carrément liggéey li ñu war a mën a liggéey yàlla suñu ban dafa a décrocher médaille daal deuxième fois nga ko jëlee. waaw. moom diis na xam nga nañ benn bii mooy ñaareel yoon ñuy bëre waaw mu am ci kawam ndam yow da ngay wala da ngay mbapat si fii parce que yaa ngi woon fan fan nga jëlee say mbapat. Euh, man village laa doon mbapatee village Ndangaan Samb laa dégg ko waaw. <laughs> yaa ngi may jël de lii nii yàlla la yàlla la waaw mooy son séeréer yi waaw. innovation yi ci am rek maanaam yu bees yi ci am mooy suñu mbokku jigéeni joolaa ñëw nañu bëre ensuite euh, cadets yi aussi bëre nañu junior yi bëre nañu tey aussi dañoo ubbi woon mbër yi lamb ji inscription bi donc on a 100 lutteurs 100 lutteurs yooyu bëre. mais e gis ngeen ki yóbbu final bi ñaareeli innovation bi aussi mooy ah, Ibou Ngom bu Ibou Sène bu Fimela moom moo ñu tëgal làmb ji tey Babou Ngom mu ngi woon feneen moo tax mais tëgg bi aussi gis ngeen jaar na yoon pecc mi jaar na yoon Simon Sène aussi gis ngeen ko produire na fi yeneen jigéen ñi produire na fi li nga ut daal mooy ah, bëggal nit ñi 4 avril bi je loolu.